للمصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان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 ñaan yàlla subhaanahu wa taala jéggal ñu suñuy baggaar suñuy bàkkaar jaamu yàlla suñuy jaamu yàlla di ko ñaan mu sàmm ñaan sàmmal ñu sàmmal ñu suñuy kilifa ku ñaanal cheikh ñaanal muntaqa muntaqa yàggal ko fi te yàggal ko fi te wér ko wér jëllu siwaat rek jëllu siwaat rek ci fàttalente fàttalente baaxoo def baaxoo def waxtu wi waxtu wi waxtaane woon nañ fi woon nañ fi ay jotaay yu bari ay jotaay yu bari ci lu jëm ci ci lu jëm ci amalil qulub amalil qulub xol def di def ci wàllu gëm ci wàllu gëm ak sellal ak sellal yéene lu baax yéene lu baax lépp ay jëf la yoo xam ne xol moo koy def xol bi jëf yooyu muy def nag léeg-léeg mu ràgg léeg-léeg mu tawat léeg-léeg mu am jàngoro yu nekk ci biiram yuy tax dootu am kàttan ci jëf jëf yooyu xool bu tawatee ni mu war a bëgge lu baax ni mu war a dëggoo ni mu war a xére ci jaamu yàlla da koy jafe day néew doole ni nga xamee ne ab cër ci doomu aadama bu tawatee dootu mën a def lam war a def walla du ko mën a def nam ko war a defee bët bu tawatee nam war a gisee du ko man nekk noonu cër bu mu mën a doon xol bi ñuy wax nii nag jubluwuñ ci xol bi nga xam ne mooy cër bi nekk ci biir doomu aadama tey pomp deret ji di ko yóbbu ci yeneen cër yi waaye li nga xam ne mooy gëm yàlla ci nit ki fi muy nekk li nga xam ne mooy bëgg lu baax bañ ab safaan xol boobu moo tax ñuy wax ne moom it day ràgg day feebar ni nga xamee ne ni la cër yépp di feebare ni la jëmmi doomu aadama di feebare ñu koy wax amradul qulub kon loolu it ci lañ bëgg a ñëw fàttalente ci tuuti ndax jëfi xol ni mu amee solo waaye xamit jàngoroy xol noonu la ame solo xam li koy moytu ni ñu koy moytoo waaye xam la koy saafara waaye it xam jëmmi jàngoro yooyu mooy yan ndax xam jàngoro yi xam lor yi muy lor xam niñ koy saafara dina dimbale nit ki waaye dina dimbale askan wi nga xam ne ci lay dund ndax nit ki ak texeem aku muccam dañ koo aj ci ak ab xolam bu set xolam bu mucc ci ay jàngoro xolam bu laab ci lañ ko aj ndax suñu borom subhanahu wa taala bokk na ci melokaan yi melal yowmal qiyaam wax ne yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim bokk na ci lim wax ci yowmal qiyaam na bis la boo boo xam ne kenn du fa mucc ku may koo xam ne bi muy ñëw ci boroomam ab xe ab xolam dafa mucc ci ay jàngoro yi ñuy bëgg a wax suñu boroom subhaanahu wa taala bokk na ci lim tàgge woon ibrahim alayhi salaam ba mu waxee ne wa inna min shiatihi la ibrahim is jaa rabbahu bi qalbin salim ibrahim nga xam ne ci xejj suñu boroom la bokk bokk na ci la ko ko may mooy xolam bu set xolom bu mucc xol boobu nga xam ne alayhi salaatu wasalaam wax nañu ne saabu bu sikkee saa ayibee jëmmi nit ki yépp ayib ndax ni ko sëriñ Tuba radiyallahu anhu waxe mooy xol mi ngi mel ne buur ci cër yi saabu bu jengee cër yépp jeng moo tax kon nit ki war a yittewoo di xam jàngoroy xolam di xam nu muy moytoo jàngoro yooyu waaye di xam nu mu koy saafara xol day tawat day feebar ndax am na mbir yu koy gaar yoo xam ne day dañ du yàgg waaye am mbir yoo xam ne bu duggee ci xol bi moom day naqaree dindi yu mel ne jàq tiit yu mel noonu mën naa gaar xolub nit waaye mën naa gaaw a dañ waaye lu mel ne ak naafeq mel ni kiñaan yu demee noonu bu duggee ci xolub doomu dindi ko day jafe yooye nag ñoom lañuy tuddee jàngoro yi nga xam ne bu ñu ko fajut bu ñu ko saafarut mën naa dem ba rey xol ba ba wowal xol ba ba nga xam ne dootu xàmmee lu baax waaye dootu bëgg lu baax dootu ca sawar suñu boroom subhaanahu wa taala ci barab yu baree baree bari mu ngi saxal ne am na ñoo xam ne seeni xol dafa tawat dafa feebar naafiq yi ba mu leen di tudd dafa wax ne seen xol yee jàngoro moo ca nekk fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu marada mu ñuy waxaat it ne ñi nga xam ne seeni xol dafa tawat ñooñee day waaraate walla alquran du def ci ñoom benn jeexit da leen di yokk sax mën naa am jàngoro wa ama alladina fi qulubihim maradun fa zaadathum rijsan ila rijsihim te ki nga xam ne xolam dafa tawat dafa feebar kooku lu ñëw rekk fitnaal ko kooku sikk sàkk da koy yomb kooku weddi da koy yomb kooku wan ginnaaw lu baax da koy yomb kon ñi nga xam ne seeni xol dafa wow ak ñi nga xam ne seeni xol dafa feebar ñooñu seytaane da daleen di yomb fitnaal liyajcala maa yulqi shaytaanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun walqaasiyati qulubuhum te it ñi nga xam ne seeni xol dafa tawat bànneex da leen di yomba fëkk yomb leen jax-jaxal moo taxoon suñu boroom subhanahu wa taala doon dénk soxna yonent bi alayhi salaam ne ñu bàyyi xel ni ñuy waxanteeg jàmbur bu ñuy wax ak kenn bu ñuy wax kenn nañ fexe ba wax ja wax doon wax joo xam ne ju dëgër lay doon bañ doon wax joo xam ne day sew walla mu nooy ba tax koo xam ne xolam jàngoro da caa nekk mu mën a xemem walla iyaazu billaah loo xam ne waru koo xemem kon ku xolam tawat lu ko yëngal day yomb lu ko fitnaal day yomb kon loolu kon xol bu feebaree day woyof gaaw a jeng moo taxoon suñu boroom di wax ak soxna yonent bi ca lu mu wax soxna yont bi xam nañ ne moom la wax jigéeni jullit yépp wax leen ni leen yaa nisaa annabiyi lastunna ka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawli fa yatmaa alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan maarufa te jàngoro yooyu nga xam ne day dal xol di ko wowal mën naa àgg ci bu ñu ko saafarawut mu rey xol bi nit ki dem ba xolam dootu dund jëmmam dina dund waaye xolam moom dee na ba lu baax dootu ci mën a dugg du mën a déglooti lu baax dootu waarooti ndax xol bu faatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi koy junj ne am na jamono yoo xam ne xol da bu ca àggee day faatu mu ne nag am na yoo xam ne ku koy def sab xol du faatu bokk na ci xadis yooyee fi yonent bi di waxee ne ñaari guddi iid yi ku ko dundal bu xol yay faatu yow sab xol du faatu man qaama laylatay al-iidayni muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yawma tamuutul xol nag kon ay bànneex dana ko tawatloo ba tax mu lëndëm ba tax mu néew kàttan waaye bokk na ci liy màndargaal xol bu feebar mooy bu demee ba dootu xàmmee ci dëgg akub safaan dootu xàmmeeti dëgg ak caaxaan dootu gisati dëgg dootu bëggati dëgg fu ñu koy waxee dëgg sax du fa sawar du ko nangoo déglu bu ñuy seetlu suñ jamono bari jàngoroy jàngoroy xol da leen a dugg ba tax li ñuy gën a xër ci di ko topp ak di ko déglu ab safaan lay doon la nga xam ne lu baax la di ay waaraate la gën a néew ci nit ñi ñoo koy jublu ñoo koy yittewoo waaye la gën a bari ñu baree bari ñi nga xam ne seen xol dafa tawat dootuñu déglooti lu baax ab safaan lañuy déglu loolu ñiy topp waxukaay yi ak déglukaay yi dañuy gis ne lépp loo xam ne wax ju juunu la bu ñu ko tasaaree mooy gën a tasaaroo mooy ëpp ñu koy topp ëpp ñu koy déglu ci wax joo xam ne juy defar la loolu nag la muy tegtale rek mooy lu bari lu bari ci doomu aadama ay jàngoro moo nekk ci seen xol ba tax ñu woyafal lu baax jublu ci ab safaan bokk na ci nag li nga xam ne suñu boroom wax nañu ko ne luy saafara xol bu tawat la ndax ginnaaw alquran xamal nañu ne xol dana tawat waaye xamal nañu it alquranul karim saafaray xol a ngi ci qul ya qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaa yaa ayuha nnaasu qad jaatkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaun lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil muminin kon loolu liñ ciy dégg rek mooy xol bii ñuy wax ne day feebar ak feebar yi ko yi koy dal lépp suñu boroom subhanahu jàngal nañu teg nañu wan nañu yoon woo xam ne ku ko topp sa xol dina saafarawu sa xol dina amaat kàttan ci bëgg lu baax dana amaat kàttan ci sawar ci jaamu yàlla moo tax nag jullit ñi waxtu wu nekk ñu war a bàyyi xel jàngoroy xol yooyu nga xam ne bu nekkee ci xol yi day jeexital ci seenu nekkin ci kaw suuf di ñagasal seenu dund di ñagasal seenu nekkin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 ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah فلا kon li nga xam ne nag mooy waral di sabab ayib yooyu ak jàngoro yooyu ci xolub jullit bi ya ca gën a fés mooy ñett ba ca jiitu mooy di mooy yàlla wala iyaazu billah mooy yi nit ki mooy dara matu cee xeeb ndax ak mooy lum tuuti tuuti day jeexital ci xol bi bu ñu doon misaal ab xol ci kayit wu weex tàll mooy gu doomu aadama bi def day mel ni ab tomb lay doon tomb bu ñuul ab gàkk-gàkk ci kayit woowee saa bu ko tuubee suñu boroom e, far ko waaye su moyaatee tomb ba day gën a rëy di gën a yaatu tomb yooyu bu baree ba bari day dem ba muur xol bi ni nga xamee ni tomb yu ñuul yooyu noonu lay muure kayit wa mooy tax xol ba dootu mën a bëgg lu baax dootu sawar ci lu baax day tayal ci def lu baax kon mooy yàlla yooyu lum tuuti tuuti rekk jullit bi lum ci mën a daw da ko war a daw bañ cee xeeb benn ndax jeexit ya muy di jeexital ci xolub doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne jaam bi saabu moyee ak moy day doon ab tumb ab tomb ci ab xolam tomb bu ñuul kuk saabu bu bàyyee moy ga jéggul suñu boroom tuub nee na ñu xaccaat xol ba raxasaat ko waaye su delloo nee na tomb boobee day dolliku ba dem ba muur xolam ca loolee nag mooy tër loo xam ne gàkk-gàkk boo xam ne dootu mën a dañati te mooy li yàllay wax ne kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax loolu ne inna al abda ida axtaa xatiatan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda fa ida huwa nazaca wastaghfara wa taaba suqila qalbu wa in aada ziida fiha xatta tacluwa qalba wa huwa arraanu alladi dakara allah kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun yàlla ci yàlla musal li nga xam ne day wéradil ab xol di di ca def jàngoro it mooy topp lépp loo xam ne lu bànneex la nuur ci donte yu dagan la nga nuur ca rekk ba fàtte sa boroom loole ay na lay doon yoo xam ne day naa la ab xol bu duggee ci ab xol mën naa dem ba tawatal ko bam am ay ba mu ràgg lool waaye bokk na ci li nga xam ne day joxe jàngoroy xol yooyu mooy nuur ci ak ak mooy nuur ci ay bàkkaar mooy bañ koo ba donte benn la nga nuur ca rek ak donte lu ñuy tuddee bàkkaar bu ndaw la boo ca nuuree mën naa dem ba wéeradil sab xol wala yaasu billah ca loolu sëriñ Tuubaa radiyallahu moo nu ko wax ne tere naa leen ngeen di nuur ci bàkkaar ndax loolu day ñuulal ab xol day def ci ab xol ak lëndëm ak wawaay du sel du dem day dem ba ba ba jaamu yàlla dootu neex ci moom ca loolee mën naa yóbbu nit ki ba mu weddi yàlla wala yaasu billah mën na koo yóbbu ci texee di mu ne wa nahaytukum an il israari fa innahu yusawidu alqalba fa tajiduhu fi zulmatin wa qasawatin wala laa xuluusa fiihi wala safawata wala lazzata wala xalaawa fa yajurru saaxibahu ila alkufri walshaqaawati yàlla ci musal kon nag xam jàngoro yooyu yittewoo ko xool lu koy saafara loolu lu ama am solo la moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi muy dem ci géej gi dénkaaneem bu am solo boobu lool bokk na ca lam ca wax ba waxee ni ñu war a bàyyee xel cër bu nekk ak lañ ca war a moytu bi agsee ci xol bi dane amal qalbu fa aleykum aydan bi xifzihi wa islaahihi xol moom maa ngi leen di dénk ngeen wattu ko maa ngi leen di dénk ngeen yéwénal ko fa innahu azamu hazihi l aadaai xataran wa aktharuha athara nee na cër yi li ñuy mën a lor doomu aadama yépp xoola ca ëpp ay lor moo ëpp jeexit ndax suñu boroom subhaanahu wa taala dafa wax ne ci làmmiñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax sax ne inna allaha taala laa yanzuru ila suwarikum wa abshaarikum wa innama yanzuru ila qulubikum sëriñ bi dafa wax ne yonant bi moo ne yàlla du xool seeni jëmm du xool du xool seeni melokaan waaye day xool seeni xol moo tax sëriñ bi kon wax na ginnaaw xol mooy li suñ borom di xool na ngeen ko yittewoo bañ a yam ci yittewoo seeni kaw yittewoo seeni xar kanam yittewoo seeni yaram di ko toppatoo muy set ba kenn du ci gis ayib ba noppi bàyyi sab xol mu tilim nee na na ngeen yittewoo seen xol laabal ko ci ay tër laabal ko ci jàngoro ca moy jikko yu ñaaw yi fala tahtamu ya ayuha al ixwaanu bi awjuhikum wa abdaanikum fa taxsiluunaha wa tunadifuunaha min al aqzaari wal adnaasi li an laa yattalica maxluuqun alayha wahtamu bi islaahi alqalbi li kawnihi mawdia nazari rabbil alamin wa tahiruhu min al wa razaili mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallama moo waxne kon inna fi ljasadi mudgatan ila ida salaxat ala wa hiya alqalb kon mu ne nag ndegam sa lépp mi ngi yéwee na ci yéwénal sab xol kon nag war ngaa yéttewoo bu baax a baax sab xol moo tax sëriñ bi ci ay mbindam day taxaw lool ci jàngoro yooyu di ko tudd benn benn bum ci tudd wax la koy saafara wax la muy jural nit ki ngir rek soññu nit ñi soññu jullit ñi soññi taalibe yi ngir ñu moytu jàngoro yooyu yar bim doon yar lépp loo xam ne jàngoroy xol la daana teg taalibe bi ci yoon woo xam ne dana ko tàqaleeg jàngoro jooje yitteem jëpp mooy defar doomu aadama tàqale ko ak ayibi xolam ay bi nga xam ne bu demee ba muur xol bi daf koy rey wowal ko ba dootu bëgg lu baax dootu yéene lu baax dootu xàmmeeti sax lu baax ak ab safaan yàlla na ci yàlla musal yooyu nag bari na lool rëy bokk na ci naafeq bokk na ci gis sa bopp bokk na ci njistal bokk na ci yu baree bari la yoo xam ne incha allahu taala danañ ci fàttalente jël ko benn benn ni mu ko jàngalee ci masalikul jinaan ak yenn mbindam yi ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu laabal suñuy xol aar ñu ci tawat yi nga xam ne day rey xol saxal ci suñuy xol yéene lu baax ak bëgg lu baax ak xàmmee lu baax di ko wuti xàmmee ab safaan di ko daw di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu saxal ci ak njub bàyyil ñu fi suñu kilifa yu baax yii ci suñu kanam ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi ñi nga xam ne ñu ngi jëm ci bis bisub soxna jaaratullahi fee ca poroxaan yàlla sàmm leen dem ak dikk nangu ñaan yépp ñu fekkewaat ko at yu baree baree bari wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu takk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 allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا الذي فضل شهر رجب وأوجب علينا تعظيمه فوجب أحمده سبحانه وتعالى واستغفره واتوب اليه متوكلا عليه معتمدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وأحذركم عن الدنيا وأحذركم عن الخطايا كي تنالوا الخيرات والهدى وأكثروا في هذا الشهر من الصيام وقوموا في ظلام الليل والناس نيام هنيئا لمن عمل وجد فيه مجتهدا ألم يان للأذن الصماء أن تسمع ألم يان للطرف الجامد أن يدمع ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يا هذا ألم تعلم أن رجبا أول شهور الفضائل جعله الله للخيرات موردا وفي الحديث إن الدعاء في رجب مستجاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم وأسرى بنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى أما بعد فالله الله عباد الله اتقوا الله وحافظوا رحمكم الله على الصلوات واعملوا الخير فإن خير أعمالكم الصلاة وإني أخشى علي وعليكم أن تكونوا ممن قال فيهم مقالا يتهم به من كان قلبه حيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وفي الحديث الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب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 سمع الله لمن حمده ربنا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 Allah asalaamaaleykum